institutionnel nekk na loo xam ne si ëlëm nañu te du lu jub parce que ni ñuy écarté sunu candidat Karim dañoo jàpp ni teguñu ko fenn ndaxte jamono bi nga xam ne si juge yi ñi ngi war a génne seen verdict am nañ ci seen loxo firnde bu nga xam ne si wér na leen ni Karim dootul tubaab amatul nationalité sénégalaise tubaab te li leen sant mooy ñu fexe ba nga xam ne si kii falu ëllëg benn nationalité lay am te loolu lañ leen saytuloo waxuñu leen leneen te loolu it wóor na leen ni jamono bi nga xam ne si ñi ngi dàq Karim ci élection yi am nañu kayit gu leen firndeel ni Karim nekkat amatul nationalité française loolu moo tax ñu jàpp ni ñoom dañoo jël décision écartée illégalement et frauduleusement sunu candidat Karim et injustement sunu candidat Karim Meïssa Wade parce que bu fekkoonte ni kayit ko war a jàlle am nañu këyit yi firndeel lépp ñun nag ñu nekk fii boobu ba léegi di waaj di préparer parti bi yëpp taxaw Sénégal gépp taxaw di xaar Karim ñuy nangu conseil constitutionnel di ko def loolu tax ñu déposé suñu comité d'enquête parlementaire te du ñun dong lañ ko def 44 yi nga xam ne sii yëpp dañ leen a daaneel dañ leen a daaneel ci ay nax sa sa nang kii dañ la naan wéy sa sa clé bi nga indi mënuñu koo ubbi lu yow yow da ngaa indi clé ñoom ñi nga xam ne sii lañ fi teg pour ñu contrôler ñoo war am les moyens informatique ki doivent leur permettre clé bu waaye ñoom mu indi ko. 900000 électeurs ñu ni ils sont inconnus du loolu fan lañu demee élection ak 900000 électeurs yoo xam ni kenn gisu leen ci fichier yi. beneen mbir mi itam gis ngeen ni euh, ñi ngi wax naan bii fichier ñi naan fichier bi baax na fichier bi baaxul kon daal nañu jàpp ni. situation bi nga xam ne si conseil constitutionnel créé ne ko ci Sénégal bu sénégalais yi d'accord ñu ciy dem ay élection ñu ngi dem ci élection yu jubul élection yu dëng élection yoo xam ni musiba lay indi ci réew mi looloo tax ñun ñu jàpp ni dañu nañu reporter élection yi toogaat waxtaan nañu reporter élection yi toogaat waxtaan xool ñan ak ñan ci mën a bokk ak ku ci war a bokk ak nan nga ciy bokkee loolu mooy indi jàmm Sénégal wasalaam